kuy màkk ci àddina Abdou boole ne ko màkka nga ca gannaaw àllaaxira c'était début 1888 Maodo dem na màkk bu mu demee màkk ànd góor gi Maar Diop ak ñamu àndal un an la def ca yoon wa mi ngi dem 88 dik ñibb si 89 bi mu dikkee nag ca la am dogu fu mu sanc pour mën a yar mbindeef ci diine yar leen ci wàllu tarixa bi ak fu mu ñaqe lu mu aare diineem ak ngoram yàlla ate ci dogu xisa taalibeem bu ñox Mame Madior Amar moo fexe ba Cheikh El Hadj Malick dem Njaarnde Njaarnde jooju góor gu ñuy ma Gumba Amar moo jur Mame a Amar moomu Mame Madior Amar nag doon jàng ci Ndar alaaji Malick di ko jàngal waaye bu mësee dem njaar nde dafa naan baay ba sama sëriñ ba ca ndar ni mu baree xam-xam mu ne ah yéen xale yi bu ngeen demee ci teeru bi ku ngeen gis rek ni waaja waaye li ma gis muy leer gi ma gis muy daagu ci sama ëtt bi bu doon xaleel mag lay doon waaye nag maam Majoor di def ay tiktak ba fexe ba Cheikh El Hadji dem njaar nde sabab ba mu def moo di dafa wax alaaji Maari ni ko soxna Roqaye Njaay mii yaram wi di wàññi rek muy jeex bu ma boo fexe woon ba mbàyyi maak moom ma yóbbu ko njaar nde foofa palaasu jur la bu naanee ca soow ma ak meew ma dana leqale ko Maodo boole ko ak moom mu dem njaarnde ba mu demee baay bi ni ko kii nag mu ni ko sama soxna sëriñ sa sama soxna sëriñ ba mu ni ko boo bëggee gis ba bëggee ma gis sa sëriñ bi teyal ganaaw ba kii soxnaa ma góor jigéen fu mu yàgg jëkkëram fekk ko fa ba ñu amee lu mat weer mbaalu ko jege Cheikh El Hadji Malick jóge Ndar nag dem njaar njaarnde ba mu demee tàkkusaan jëmu àggee yàlla ate góor gi nuyoo góor gi ma gumba Amar waaye góor ga nuyu ko nuyu bu seweer ba timis jotee góor gi liqaamal ko jiital ko mu julli timis gee jot góor ga liqaamal ko mu jiite gee bi fajar di laata jot góor ga daal di dikk fëgg ma major amar ni ko waajam waajaa ngi nii ka ma gisoon mi ngi nii borom leer gaa ngi ni yoor yoor jot mu dikk ci Seex Alaaji Maalik ni ko ñaar ben nga wax ma lo bëgg ma defal lako nga tok fi ba jullé ma jébbal ma sama borom foy dem nga sok fay dem mba nga sa bagage ma yenu sama bagage and ak yow ba fo ma meuna jullé rek nga jullé ma jébbal ma sama borom ni ko nak lima bëgg modi di fu ma ñàkk lu ma sama diiné ak sama ngor ak fu ma yare jullitu yàlla yi ba ñu mën jubok borom gor gi ma gumba amar takfas jox ko takk fas war ni ko toppal ci man foo doyale rek nil doyal na àll bi maako ko moom. ñuy wër di wër di wër di wër ba Maodo ni ko fii doy na mu ni ko loolu yëpp yaako moom jox naa la ko ngir nga nekk fi rek ba jullee ma jébbal ma sama borom. Haaji Malick nag daal di installé Njaarnde gannaaw bi mu jógee màkk mag ñi nag di ko fa fekk waa Njambur waa Waalo. waa Kajoor waa ñëpp daal di ko fa fekk ñoom Baye Alaaji Rawaan Ngom ak ñoom mag yi njare mag ñi ngay dégg ñépp di ko fekk si ko fa ba mu fa nekkee nag ñi mu nekkaloon ndar te ñi di ay doomi soxna ni leen Maodo muure woon ci wàllu xam-xam ñuy bind gouverneur bu bu ndar di ko xamal ni Alaaji Malik mo wuutu Cheikh Oumarul Fouti té doctrine tarixa bi mo amé moo di xeex ak yéeféer moo ko tax a nekk ba di wut ay soldats ak gànnaay pour dal ci kaw gouvernement français pour génne len réew mi gouverneur yokalé ko ak kilifaam ministère de la France d'outre-mer ñu dal di def pexé pour arrêter Alaaji Malik liste bañu bind mu dik pour ñu arrêté leen juróom-ñetti nit lañu Alaaji Malick mooy numéro un Algafa Birane Gueye ca Màkka Baraga yi numéro deux Modou Diop ca Sancu Mérina numéro trois Serigne Kokki Amadou Aminata numéro quatre ah, ah, Serigne Dia Balla Thiane Dia numéro cinq Samba Law ak Weyndé Tall bu Weli Ngara ñooñu ñoo bokk benn list pour ñu war leen a jàpp ba liste ba dikkee am na benn interprète bu ñuy wax Baame Jang doomu Mor Masamba Jéeri Jang mi doon tiiteeroo Alaaji Malick ci Ndar gis na list bi soufflé ko baayam Mor Masamba Jéeri ni ko sama mag jële ca Njaarnde gis na liste boo xam ne dañ koy war a jàpp mu ni ko lu ciy pexe mu ni ko ko woo mu dikk ñu jàppee ko fii mo gën di suture ñukay jappé ci alba ba Mor Masamba Jëre dem ci alaaji mawo sen ab ko jërbaatam bu ñox ablay Jóob jox ko pass ne ko da ngay dem kel bo démé da fa fekk commerçant bu ñox ali jaxaté na tak fa war tak fa jox la nga war ngeen fa su womat ngeen aw yoonu ndiar nde bu ngeen aggé na malik war ci bobu ñu womat bu diké na ko jox pass mu fekk ci ma dama ko keroog ba ñuy àgg ak fas ya ca njaar le fekk nañu Cheikh Al Hadji Malick solo ba taxaw ca boppu tool ya di leen xaar. ñu ni ko ku la noo ngi doon dikk mu ni ah li ngeen di nëbb du ngeen ko denc ci sendal nan dem rek ba mu dikkee àll di jaxate jox ko paas mu wàcc si ndar ba mu dikkee ndar. Mor sàmba Jéeréen ko dalal ci rii loti ci kër ku ñuy faatu Fatou faatu gay Gaye moo jur Xadi Fatou Gaye mu jur Jim Njaay mi ngay dégg ci rii Perloti ca kaw taax ma fa lañ ko dalal ñuy ñettoo Mor Masamba Jéeri Baame Jang mi feeñal secret bi ak Cheikh Al Hadji Malick ñu ni ko dañu la bëgg a jàpp mu ni ku ma bëgg a jàpp ñu ni ko tubaab bi moo la bëgg jàpp mu ne lu ma def ñu ne ah xamuñu ko waaye liste ba daal yaa cay numéro un mu ni baax na bu subaa danaa seeti ci ma bëgg a jàpp bi bët setee yoor yoor bi ña doon bind leetare di ko réclamer yëg liste ba yëg dikku Cheikh Al Hadji ñu defee ni Kuuba àgg na ñu dikk di ko seet si bi ñu dikkee nuyoo moom góor gi kañ nga ñëw mu ni ñëw naa biig ñu toog ba bare Maodo ni leen dama bëggoon a xëy seeti borom réew mi ñu ni ko nan la gunge ngungu moomu alaaji baaba njong bu Podor ma nga ca mi ngi bokk sajaada alaaji Malick bi bi ñu dikkee bay jub baye yi jub buntu gouvernance alaaji Malick geesu gisatul ci ñi ko doon gunge kenn ku dul mennum baaba njong baaba mu ni ko si mu ni ko ana nit ña mu ni ko ñu nga ne la def par ñett par ñeent di deeyaatoo de mu ne ah lañuy yaakaar ak lay am du benn man mii wax ak yow nii sama baay Abdourahmane Wele nettali na ma nee na Cheikh El Hadj nettali na ko nee na ko bi may dugg ci bureau gouverneur ni ma jàkkaarloog rasulullahi ci sama bët noonu laa gise Seyid Cheikh Ahmed Tidiane ci sama ndeyjoor gisee ko Cheikh Omarul Fouti ci sama càmmoñ ku ne yor jaas yi defe woon naa ne tubaab baa ngi leen di gis ndeke man rek maa leen di gis. bi mu dikkee gouverneur jox ko. 16 mu toog mu génn benn registre commencé di ko laaj filiation am di ko laaj di ko laaj di ko laaj ba agsi ci ban tarixa nga nekk mu ni ko Tiijaan mu ni ko bu Cheikh Umarul Fuuti yu mu ni ko waaw mu ni ko kon wax nañu dëgg mu ni ko lu ñu wax mu ni dañu ni doctrine tariixa bi mooy xeex ak yéeféer moo taxoon Cheikh Umar daan xeex ak yéeféer yi te yaa wuutu Cheikh Umar moo la tax a nekk ca àll ba di wut ay gànnaay ak soldat pour dal ci suñu kaw alaaji Malick ni ko ñi ko wax dañuy juum doctrine a cheikh mooy xeex ak bakkan ba teqale ko bànneexu bakkan teqale ko seytaane pour mën a jubóog yàlla moo tax mu am sart yoo xam ni bu fekkent ne nee nga bëgg nga ko ñu jox gaaral la sart yi nga nangu ñu jox la boo nanguwul ñu bàyyi la dontale dontale ñoo la jur mu ni ko luy sax xalaat ci gouvernement français ci réew mi mu ni ko feek ñu ngi ma bàyyi ak sama ñett dama leen di ñaanal ñi jëm kanam ñetti yanam mu ni ko sama diine sama tarixa ak fu may ñaqe lu ma aare sama diine ak sama ngor gouverneur ni ko nun soxlawuñu yooyu mu ni ma ne seen àddina soxlawuma ko bokkunu lu nu bëgg gouverneur ni ko ak sases bi nga waxeek man ka ñuy arrêté du yow daal di koy génnee list bi nag ni koy gis nga ñii la ñu boole noonu pour arrêté leen waaye nag ka ñuy arrêté du yow. waaye nag. fokk nga toog fi ma def rapport yónnee samay kilifa wax njub gi nga nekke ak dëgg gi nga nekke du ñu wax lu dul nañ la libéré. voilà kon nag mbokk yi ma fàttali rek ne kii muy waxtaane mooy Seydi Hadji Malick Sy ak ay jaar-jaaram ñu nekk fii ci Tivaouane ci gàmmu Tivaouane gi nga xame ne. moo di téeméereelu yoon bi ak euh, juróom-ñaar ci édition 2009 bi ñu fiy dalal suñu pàppa alaaji Seydou Wele bu luga mu toog fii tey jii ci Tiwaawan ci jaar-jaari Seydil Hadji Malick si ba tubaab bi wax loolu Seydil Hadji Malick nag pour mu libar dem. ah ni ko foog nga toog fi ba am fi ba ma def rapport yónnee samay kilifa trois mois la fa def gouverneur woolu ko mu dikk mi ngi ànd ak góor gi Maar Diop mi ko yóbbu woon. magum xaadir la waaye ku bëggoon Cheikh Al Hadj Malick te bëgg diine ba ñu dikkee góor gi Maar Diop toog ci bunt bi Cheikh Al Hadj Malick nee ma dugg bi ma duggee gouverneur ni ma jot naa réponse bu jóge ci samay kilifa nee nañu fépp foo xam ne drapo français ngelaw nga ko fay upp may nañ la nga tàllal fa sa malaan wa sama ngir sa njub ak sa dëggu ñu gërëmante El Hadj génn bi El Hadj Malick góor gi gi mu àndaloon Maari Diop ni ko lu mu la wax mu wax ko ko mu ni ko demal ni ko na ko bind te jox la ci copie mu dem gouverneur bind ko jox jox ko ci copie ci làmmiñu Cheikh Seydi Aboubacar at mi sëriñ Mansour borom daara ji ak sëriñ Cheikh Tidiane si jëkkee génn di waxtaan ak nit ñi ci gàmmu fii ci suufi taaxu kaw bi ñuy wax Kaolack booba ca waykat yàlla bokk bi gàmmu gi paase dama xëy si Seydi Aboubacar ndax ku ko ma yaboon laa ci kaw kanam nga leer li ma ko daan kafal ma dikk ci fekk ko ci saal bi mu jox ko loxo mu gësam sama loxo ma ne ko sunu gàmmu bii gi nan la def mu ne ah dama leen sëpp day ba dama lay bi daf ma jàpp ba dama xaw a soj sax waaye ah neex na de waaye seen gàmm yi lu mu tuuti tuuti ngeen ñaanal ko permis ci kër commissaire waaye sunu wasifa bi lu mu xumb xumb permi ba pare woon na bu yàgg ma nga ne la ca ko ñu waxande wa booba loolal la doon gaaral bi mu génnee moom Cheikh El Hadj Malick nag dikk ci titeuram Mor Massamba Diéry mu ni ko na nga toxoo njaarnde wuti foo dëkk ci teeru bi ba tubaab yi di xëy di gis sa pexe ba xam ni jëmoo ci ñoom lu ko mooy daañ leen mën a boole. alaaji Malick nag dellu boo soxna Roqaye njaay ak maam Safeetu Ñang yaayu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ñu nga njaarnde mu bëgg installer Louga ndax fa la mu xàddamam ëppee waaye mu fekk fa ma maam Malick Sall mamu Seydi Jamil mu ni fii comme que mag a ngi fi aw ma lu ma fi toog ndax bu ma fi toogee mën nañ ma boole ak moom comme que kuy liggéeyal yàlla ngi fi naa wuti feneen di jaabante nag diggante Ndar ak euh, Louga ak Tëngéej booba xamagul Tiwaawoon yàlla atte fii ci Tiwaawoon mhm. am na fi ñaari commerçant yu bëgg alxuraan kenn ki lébu la ki ci des doomu ndar la lébu bi mu ngi tudd Jibril Guèye commerçant la doomu ndar bi mi ngi tudd Majja Caane ñu woowoon góor gi Birane Cissé maamu maamu Alaaji Amad Cissé Pire ñu woon ko ci pir andi ko tiwaawoon mu len di firil alquran waye bu agsee ci ben lendeum lendeum dafa nan ah bu ngeen xamone sama waja ñu ne ko kuy sa waja mu ne ku ñu wax alaaji malik yeen ñi jang tubab mom rek mo len meuna a alquran ndax dégg ga leer daf ko tungom man nak saalum saalum la samay waraf leerul lolu farapelen Mama jor Amar mi ma la tudd ni moko yobone daan def commerce nag am ak ñooñu relation dikk fi ñu laaj ko ndax xam nga Alaaji Malick mu ni mooy sama sëriñ ana moom ñu ni ma nga tëngee kër Ibra Seck ndax Ibra Seck dafa nekkoon borom alal di borom daraja te yàlla xiiru ko lu dul ci commandé ay téere di ko exposé foofu pour doomi soxna yi dikk di koy di fa yër mu leen di xam muy xamante ak ñoom. Seex mhm. Alaaji Malick yooyu jamono fa fa la nekk. ndax mën nga nu indil El Hadj Malick mu ne bu ma joxee paas ñu jox ko paas mu dem Tëngéej ba mu demee Tëngéej dialogue ak El Hadj Malick ba indi ko Tiwaawan 1894. 1894 la Seydi Hadj Malick si njëkk a teg tànkam. ci la ñëw Tiwaawan 1894. 1894. am na ñuy wax 1902 waaye dañuy juum. Mhm. li leen fab bi ba ñu wax ko nag. moo di gàmmu Tiwaawan gi officiellement ñu ngi ko tàmbali 1922. 1902 1902. première peeru jumaa ji ñu ngi ko teg pour 1902 loola moo leen fab bi waaye Alaaji Maalik a ngi dikk 1894 ca la ñëw ci waawoon. 1894 la Seydil Hadji Malick si njëkk a teg tànk. ca la ñëw ci waawoon jóge Tëngéej. jóge Tëngéej ca kër Ibra Seck. la bi mu fa saxee diir la dem jëli maam Roqay Njaay delloo ko ndar fa maam Safeetu ñu indi ko mi ngi kër Jibril Guèye foofu lañ ko dalal mu nekk fa na leen piri. bi muy dikk Tiwaawan nag juróomi sëriñ la fi fekkoon ndax Tiwaawan juróomi quartier la yooyee jamono quartier bu ñuy wax ndut quartier bu ñuy wax fooñi quartier bu ñuy wax kuli ngi jaan quartier bu ñuy jaaloo ngi jaan ak quartier bu ñuy wax koñ jàkk fi ñuy tudde koñ jàkk moo doon quartier commercial ndut googu ñoom quartier buñu nek dafa am serigne bopam quartier ndout sen serigne mi ngi tuddu Mor mbacke mo don imam raat bi juma ji quartier Foñi sen serigne mi ngi tuddu euh, Thierno Bousso quartier jan sen serigne mi ngi tuddu Tamsir Mandiémé mbay quartier Dialo jan sen serigne mi ngi tuddu Tamsir Boubou quartier bii ñu tudde léegi Kondiak seen sëriñ mi ngi tudd Njool sa Ba ñooñu ñoo nekkoon sëriñ yi Tiwaawoon Alaaji Malik dikk fi nag ñoom ñëpp ñu opposé ko ndax dañu nekk sëriñu làmb ci 1894 waaw 1894 dañu nekk sëriñu làmb sëriñu làmb mooy lu buur bëgg ngir bakkanam nga fexe ba daganalal ko ci téere yi alaaji Malik nag dikk indi sunna mu diis ci ñoom mhm. ñu kontar ko ñoom ñëpp waaye nekk gi mu ne kër Jibril Guèye am benn at benn tëbaski jot Alaaji Malick ànd taalibe yi mu am julli foofu tëbaski ñooñu tëgg lu ndënd ni ku toppoon ci Alaaji Malick amuloo tëbaski yàpp nga am coow li bare Alaaji Malick dajale ñi mu am ci taalibe ni leen lu ngeen xam ci coow li ñoom ñëpp seen réaction moo di dem xeexi ak ñoom doomu ndar yi ni dañuy porter plainte lébu yi ni dañuy xeexi waalo waalo yi ni dañuy xeexi waaye bi ñu waxee ba àggal Maodo ni leen bokkum ak yéen xalaat ndax tooñu ma yàlla tooñu ma yonent bi te ni ko charia tërale noonu laa ko defee waaye ñoom maa leen tooñ ndax maay doxandéem maa waroon bala maa jàpp waxtu ma diisoo ak ñoom waaye gannaaw ba defuma ko lu xew mana kon nag sama tooñ googu danaa ko jéggulu teg na ay fan ba coow li dal mu ànd ak góor gi Amath mbay Amath Mbaye Maodo papa yi Mansour Mbaye mii ci rajo bokk benn mbubu cawale ak benn seru cawale ànd ak moom ba ca kër yelimaan ji ci guddi ne Amath Mbaye duggal nga ni yelimaan ji dama ko soxla Mor Mbàkke bi bu dikkee fekk ko mu ngi làmb tëdd mu ni ko alaaji Malick de la soxla mu ne alaaji Malick ci sama kër lum fi fiy wut dal di réactionné dal di gis boppam dal di tëg feranglaay yi ci kaw lal bi dal dina dugg si lu fi indi fekk ko fi alaaji malik yoot nànk dal di fab mbub mi mu bokkoon dal di ko koy jox ni ko dama lay jéggalu ci loolu fi paase woon dama juum waaye sàllaaw dootul am mu ni koy eh, alaaji Malick bëgg a wax alaaji Malick ni ko boo waxee ca kaw njaboot gi dañuy yeewu dama la doon jéggalu rek daal di génn dem seru mbub mooma mu boole koog ñaar fukki dërëm géwal ba doon tëgg ndënd ma ñu koy wax cee faatim moom la ko jox ca guddi ga ko ngeen baal ma ak kooku ni ko nag si man sama yoon nekku ci dañ ma doon tëggaloo rek ndax géwal rek laa fexe na ba mboolem sëriñ si ma la tuddal ku nekk dem na ci yow dafa seqal yow teraanga à la fin ñoom ñëpp ñu ngi ki jël ci moom salaatul fatiha. que mujj ñoom ñëpp faf mu nekk seen sëriñ. waaw. dal di fab jumaa ji ñu yoroon. Mor Mbacke moomu doon ko jiite. booba néegu sëngal la. 1901 ñu ne El Hadj teg nañ ko ci sa loxo topp nañ ci sa gannaaw loo joxoñ ñu dog ko El Hadj Malick woote pour teg première peeru kii bi lu ndax dafa dajale taalibe yi moo am ni leen mu xàddam bu nekk sas naa ko dërëm pour ñu tabax kii bi ñu ñu soppi place bi diw ana sa dërëm mu ni ko si mi ngi nii diw ana sa dërëm mi ngi nii rawaan ana sa ñaar dërëm aha dama juum mu ni ko si def naa li nga juum moo ca def ñaari dërëm ba ñu dajalee xaalis ba mu nekk cent quatre-vingt-dix francs moom la ñu tabaxee jumaay Tuile jooju. teg premier pierre bi 1902 inauguré ko 1904 ba ko Maodo inauguré nag ba mu ko inauguré gare la fabaat yëlimaan jooju Mor Mbacke jiital ko fab ku ñu wax Atumaan Njaay tofal ci gannaawam ah, at moomu muy inauguré jumaa ji ca la Alaaji Abdou Aziz Gane àddina 1904 ca la toju jak saaw it ruuju jak saaw boobu ca la am yooyu événement moo tax nit ñi di juum ba ci archive nationale mi ngi wax naan El Hadj Malick ngi dikk Tiwaawan 1902 waaye njuumte la événement yooyu moo leen buuree ñu ñu na mu tudd. waaye jiitu na jiitu na loolu mu ñëw Tiwaawan. 1894 la ñëw Tiwaawan. bi mu ñëwee Tiwaawan dafa ñëw rek tàmbali di jàngale wala Maodo dafa ñëw comme li nga wax léegi dugg ci géew bi. ba am suuf am kër yooyu. déedéet ba mu dikkee tafsirul quran la commencé ñooñ commerçant yooyu ma la wax. Madia Thiané ak Jibril Guèye. d'accord. foofu nag la ko taalibe yi commencé dikk di jàng si ci moom ci kër Jibril Guèye. waaye duggul ci groupe bi dafa jëkk taxaw fa lay indi sunna ak alquran. ba ñooña fekk si ko. loolu la fi nekkee woon waaye Tiwaawoon lu jiitu loolu. noonu la demee woon nii di la fi Cheikh El Hadj Malick dikkee. voilà nii la fi Seydi El Hadj Malick si dikkee mbokk yi ma fàttali ñu ah. ci gàmmu Tiwaawoon euh, di waxtaan ak Pape Seydou ci jaar-jaari El Hadj Malick léegi nag El Hadj Malick ñëw na Tiwaawoon nu mu fi sampoon nu mu demee ba am fi nag sampo nag ba am fi kër nag. xam nga boo ànd ak yàlla. léppay yomb. lépp daf lay yomb. Mhm. bi mu dikkee indi sunna rek. Mhm. alxuraan ak sunna. yàlla dimbale ko ba mboolem koo xam ne ki amoon nga ñaare xel ci diine ji walla ci tarixa bi ñoom ñëpp ñu wëlbati ko di ko ànd si ak moom ndax dëgg rekk moo sax te moom ci dëgg rek la nekkoon ba ba lu ko ci fekk fekk ko ci. mu tàmbali jàngale nag di jàngale. Ah. ba taalibe fekk ko fi. fekk ko ci biir Tivaouane. waaw léegi ay tool amoon na ko Tivaouane walla walla walla njarne rekk la ko mën walla jagsaaw walla fan la amoon i tool. bi mu nekkee Tiwaawoon fu ñuy wax Sancu Pire Sancu Pire trois kilomètres de Tiwaawoon waaw foofu la amoon tool waaw ah, d'accord Alaaji Malick bu buudi moo nekkoon jëwriñu tool ba Alaaji Malick Sarr moomu taaw taawu Alaaji Malick Alaaji Malick la ko may ñu taawloo sama yaay man miy wax ak yow Sancu Pire la nekkoon am fa ay tool gannaaw ga am na fu ñuy wax Serif Lo amoon na fa amoon na fa tool. gannaaw gi nag la soog a am jag saaw jëwrin may sa mbay sopp tool ko ko ak ku ñuy wax euh, aman njaay jonwaar ak euh, ku ñuy wax euh, góor ga taay ñoom ñoo ñoo toppatoo affaire jag saaw bi jox ko ko mu toj ko 1904 hmm. waaw d'accord Seydi El Hadji way juróom bu góor maam Ousmane la tudd waaw defe naa ne jolof jolof la de am déet. jolof jolof cent pour cent. Ah. maam Ousmane la tudd turu cosaanam mooy Demba. Demba Mati Mbàkke ndax Demba Bunna mooy papaam. Demba Mati Mbàkke Mati Mbàkke moomu. Amadou Farimata Mbacke moo ko jur. amadu Farimata Mbacke maa aram Mbacke moo ko jur. jur Balla Aysa mu jur Mor Anta Sali mu jur Serigne Touba noonu la ñu demee ci bokk. ñu demee noonu ci bokk. waaw. maam Ousmane nag nekkoon ndaw. te booba ni matériel jiitoo tey noonu la xam-xam jiitoo woon mu laxas aw yoonu gànnaar di jàngi. ba dajal xam-xam yëpp. wëlbateeku nag jaar gaaya ci xisa bu gudd digganteem ak maam Faa Wàdd yàlla àtte ci sëy ci kaw ndigalu Cheikh Umarul Fuuti yi radiyallahu taala anhu ndax lu jiitu muy dem moom Cheikh Umarul Fuuti yi lu jiitu muy dem Makka dafa yàggoon gaaya trop maam Faa Wàdd yaayu Cheikh El Hadj Malick sonnoon ci moom lool ndax moom bu ma see gis nitu yàlla wala kuy sàkku alxuraan dafa daan ñaq di la jox nekk googa Cheikh Omar nekkoon gaaya nag am na sax téere bu mu fa taalif ci lasraar mi ngi tudde téere ba gaaya bu mu fa jógee nag ba dem penku ba yàlla jox ko li mu ko jox ba mu wàññeeku di ko installé ore fondé commencé jihaat moom Cheikh Omarul fouti yi waa gaaya dégg ni sëriñ bi fi nekkoon mi ngi ore fondé nañu wut lu ñu ko dimbalee ndax dégg nañ ne dafay jihaat ñu dajale marchandise mu bare laaj ay walanteer ñu ko war yóbbu yóbbul Cheikh Oumar ya juróom lañu Alpha yoro moo leen juróom benneel Samba Yali Niass Mody Lo Babacar Sarr Malamine Samb Yokk Moussa Gueye ak Alpha Mayoro ñooñu ñëw volontaire yu jël marchandise mu pour yóbbul ko Cheikh Oumarul Foutiyou Thiaw Oré Fondé Mm-hmm. légi nak mam Ousmane bi lol amé ba ah, sen Hadji malik tambali gamu si yàlla Malick maanaam nan naka nan la dan gàmmoo ci bir Tiwaawoon gam na nak la ko dan tedde booba nit ñi bari wuñu moy yi amul xana day naafilaam day jang alxuraanam day sikaram lu mi don def. xam nga lu Wow. officiellement ñuy gamu waaw Alaaji Rawaan la dan andal ñuy gàmmu Alaaji Rawaan Ngom. Ah, bu pal bu pal mm-hmm. bu guddigi ma sey jot. dañuy daje ñoom ñaar kii tàmbalee ci xaaju kaw bi kii tàmbalee ci xaaju suuf bi bu kii dee ak si dee àggal dajeeg fajar ji jot noonu la ñu daan. gamoo euh, waaw. bi mu dogoon nag ci def ko officiellement la diisoo ak doomi soxna yi ci yi ci département bi. Mhm. bokk na ca Cheikh Bou mhm. na ca ku ñuy wax euh, góor Samba Tukulóor. Mhm. ndax bokk na ci Samba bokk na ci ñi tax Maodo toog Tiwaawan ndax nitu yàlla la woon ko amoon kasu yàlla daan na ko won lu mu wonul kenn. Mhm. mu nekk fii ci kër Yoro Sadio. armée la ma ngi foofu bare nitu yàlla ku sax ci département bi te moo fi saxal moom Samba Tukulóor. Mhm. diisoog ñoom ak góor gu ñu mbake Mbàkke Buso ak góor gi ah, bàyyi Alaaji Amad Sise mag ñoo ñu la dajale ak Alaaji Rawaan Ngom ñoom ni leen dama bëggoon mbir mi nu génne ko biti pour ñu def gàmmu officiellement ñu d'accord ci jox ko ñoom ñëpp seen xalaat góor gi Abdou Cissé pàppay Alaaji Rawaan Cissé ni ko dama bëgg boo defee juddu bi nga may ma ma def ngénte li moo waral gàmmu Pire ak gàmmu Tiwaawan ñoo bokk benn bés bu ñu na mu tuddati du ñu waaw Seydil Hadji Malick Sy dafa naa nee nañu amul kenn ku mbokkal baay waaye am nañu mbokkal ndey amaana Alaaji Malick bokkul ak kenn bàyyi bokkul ak kenn bàyyi am na ñaar nag ñu mu bokkal ndey kenn ku góor ak ku jigéen ku jigéen ki mi ngi tudd Fante Ñang moo jur Sëriñ Saybatu Fall borom xam-xam boobu nga daan dégg. Mhm. ku góor ki moo tudd ab Booli Fall moo jur Alaaji Malick Aysa ak góor gi Aline Fall jaboot na moom moom na mu tudd Abdou Booli Fall ñoo ñaar la Maodo bokkal ndey mhm. te ñoom ñaar ñooñu it bokkuñu bàyyi. kii ñang la sant kii faal la sant. laaj mhm. El moom moo maam Ousmane benn rek. maam Ousmane képp la jur ndax bi mu dikkee gaaya ba yàlla àtte digganteem ak ndax dafa am lu ma doon indi. nga dogale ma. waaw bisimilah bisimilah maa ngi ciy jégalu waaw. ba ñu demee yóbbu marchandise ma jox ko Cheikh Oumarul Fouti ñu nga àgg bésu àllarba ci ni ma sama bàyyi nettalee noonu la ko ko bàyyam nettalee. moom ma demoon alfaama Mayoro. bu ñu àggee bésu àllarba la. yàlla àtte fekk na Cheikh Omar am na ay fan yu ko kenn gisul mu dugg xal wa ñu gis bëkk néeg bi ni ko dañu bëgg ku nu introduire ci sëriñ bi mu ni leen foog ngeen neexal ma. fekk ba ñuy dem bi ñu agsee dëkk bu ñuy wax euh, dëkk bi ci Fuuta euh, yan bi ñu yanu marchandise bi diis ci ñoom ñu wàññi ko jënd ci loo sëf ca la ca des ànd ak moom nag ba àgg fuut euh, orefonde ba ñu demee ba ja ñu àggee ca tàkkusaan bëkk néeg ba ne leen fokk ngeen neexal ma ñu neexal ko ndax wax na góor gi dara ndax waxun lu góor gi dara xamuñ ca dara waaye toog nañu ba aljuma ci yoor yoor Cheikh Umar génn ci fi mu duggoon xal ba dafa génn rek ne ana ma Mayoro fekk ba muy laata dem maam fa waat dafa ràbboon benn sér jox Alpha Mayoro ni ko boo demee nga joxal ma ko sëriñ ba ni ko dama dolli ñaan ndeysaan waaw dafa génn rek ne ana ma Mayoro ñu ne Alpha Mayoro maam Alpha jóg taxaw mu ni ko ana sama sër ba sama jigéen ba joxoon ni la naa ko dolli ñaan mu seet gisu ko ci marchandise bi mu ni ko taal ñaar moo am loo wi biñ koy jënd sër ba ànd ca mbaab li ñu neexal bëkk néeg bi yokk Musa Géey mi àndoon ak moom moo fab sëram jox ko ni ko ni ko na ko remplacer sër booba Cheikh Oumar fab sér yokk Musa Géey teg ci gannaawam ni ko alfa jox ma sama sër maam Alpha jóg nag gëdd bëkk néeg ba fekk ca sër ba daal di ko ne taal sa sër a ngi mu jóg taxaw firi sër bi ah fuuta ñu ngi ko taal ci yor-yoru aljuma de mu ni képp ku mës jóge penk wala nga jóge soow di wuti ku la jokkale ci yàlla daa dellu ci doomi borom sër bii fi ma yem ci tarixa bi moo fi tàmbali ba sóob ko ca doju gudd wala may seen ca ndox mu bare mi muy doju ngor mu ni lépp dana nekk lil faatee li ma uxliqa te bal du tàkk yet du jóg. te am na. waaw booba maam Ousmane giseegul ak maam Fawad daal di ni ko Alpha sa jigéen bi ma yónnee sër bii. dana am benn xaleel ci at yi ci kanam dana fa jaar mi ngi toll ci fanweeri at Ousmane lay tudd si lay sant mu ngay mu ngay jóge gànnaar di ñibbi dana fa jaar digganteem ak sa jigéen bi yàlla dana ci at sëy doom ju góor dana ca sosu doom ju góor jooju bu ganee àddina nag fi ma yem ci tariqa bi moo fay tàmbalee ba sóob ko ca ndox mu bare ma le dajoo guddoo daal di koy may wér de ni ko nag dana bokk ak moom jamono waaye du nu gisee yow lay giseel yaa koy may wér de yow Alpha yaa koy defa lépp te bàyyi ko nag mu boyal taal bi yàlla atte maam alfa dellu si waxul maam fa wàdd dara toog ba maam usmaan yàlla indi ko gaaya mu nekk ndongolu làqar ci ci daaray mahan dabaaba ca gànnaar doon ñibbi jolof mhm. nekk nag taalibe xaadir moom maam Ousmane Ousmane Sy. waaw bàyyi Cheikh El Hadj Malick Qaadiri ci tariqatul Qaadiriya la nekkoon. Mhm. yàlla atte bi mu dikkee gaay Cerno Malick mañ ko dalal. Mhm. moom itam bu di Qaadir bokk ci tariqatul Qaadiriya. Mhm. Cerno Malick nag moo doon yëlimaan ji. di Qaadiya di sëriñ daara ba. yaayu Cerno Malick ak yaayu maam Fawad ak maam Alpha dañu bokk bàyyi te bokkuñu ndey. fekk na nag maam Alpha maam nekkatul ci buumu sëy waaye mu wax maam Alpha ni ko gan gi nga fi indi dama gént ah, sëy ak moom ba am ak moom doom ju góor ju siiw loolu lan la maam Alpha rappelé la ko Cheikh Omarul Fuuti waxoon mu ni ko du dara réeral ko ba mu fa jógee nag mu woo maam Ousmane laaj ko filiation waaye la mu ko wax yëpp doon la ko Cheikh Omar waxoon mm-hmm. ndax am nga soxna mu ni ko déedéet am am ak ma soxna dama bëgg bu ma àggee sunu dëkk denc soxna ndax fii bëggoo li nga fiy toog ñu may la fi soxna mu ni ah, awma lu ma def ci jigéen te it xamuma leen xamu leen ma mu ni ko xam nañu la ndax doomi soxna nga te boroom xam-xam nga bu fekkee loo ci def la man alfa danaa la fa féete bañu d'accordé ci cadre mu génne mam Alpha génne juróom-ñaar fukki andari dugub bu wéx bu ñuy wax euh njaxnaat sarax ko ko moom la ñu wooye Thierno Malick ñu def digënté wëlëré mam Ousmane ak mam Fawad mu tar defa ñaari wër ba ñaari wër ak genn wàll mbaa ñett di soti ben téré bu ñu wax watis watis dafa démé ci téré ci tariqa Abdou Khadir jeylani ni jawahirul maani démé ci nun mu toog fa di ko sotti ba téere ba àggee nag ñaari weer a genn wàll mbaa ñetti weer mu continuer nag pour àggale yoonam ba muy dem maam Alpha gunge ko ak maam Thierno Malick genn wàllu kilomètre de gaaya foofa la ñu tàggoo fu ñu wax fer koro bi ñu ñaanee ba àggal maam Alpha ni ko dama lay laaj faawaat mi ñu la mayoon ndax yëg nga ci yaramam tàngaay bu ci nekk te nekku ci woon mu ni ko waaw mu ni ko bu dee ëmb nag mu ni ko bu dee ëmb te fekk muy jigéen yàlla jubal ko muy jigéen nañ ko tuddee Mati Demba may ma bokkal ndey ak baay bu dee góor nañ ko tuddee Thierno Malick mii ma nekkoon këram dem na ba mu demee lay sababu am na am na ci taarix nag loo xam ni danga koy romb rek waaye doo ko tudd ba mu demee Jolof yàlla moom ko alaaji Malick juddu gannaawam ñu tuddee ko Malick Sow ñu tuddee ko Malick Sow lu jiitu muy juddu gannaaw bi ñu teqale ko noonu ca la maam alfa jàpp bis dem siyaare ji Cheikh Oumarul Fouti ca Oré Fondé Cheikh Oumar daf ko seen rek ree ni ko alfa jërëjëf la ma la dénkoon sàmm nga ko xale baa nga ne la ma jàkkaarlool ca biiru yaayam góor la bu juddoo na ko tudde ki baayam wax alaaji Malick gane àddina ñu tudde ko Thierno Malick Sow fekk na rek gisewul ak baayam alaaji Malick mës a gis papaam déedéet gisul papaam baayam moom baayam moom sabab yi ko faat xamuñu ko dafa dem tëdd feebar am dafa xam nañu ko bisimilah moo tax ma ne la histoire dana ci am loo xam ne fokk da nga koy muur malaan ndax pël ba ko rey mhm. mi ngi tudd Samba Danjo Sow la sabab mu rey ko la kenn dul tudd. waaw mm-hmm. ah, d'accord d'accord léegi nag El Hadj Malick nag moom daal di wéy dambali nag jàngale El Hadj Malick jàngal ak ñu ko jàngal. alaaji Hadj bi mu matee dal jàng alquran. Mm-hmm. maam Alpha ma yoroon na jaay ji moo ko bindal ba mu fer ijji mu jox ko turandoom Thierno Malick Sow. Mm-hmm. ni ko nga mottali sa wëllëre ba ak baayam ci moom. ba mu jàngee ba wàcc xaaju suuf bi toll ci fukki at. ki bokk ak baayam ndey ak baay ñu koy wax maam Amadou dégg ni rakkam ji ñu rey am na doom ci àll mu yebal ndaw pour jëlsi ko mu ngi tollu ci fukki at door a wàcc xaaju suuf bi ndaw ya ku ñu wax maar Aysata Sàll moom la ñu yebal si la sant yaa jamoo sant Sàll maar si maar Aysata Sàll ak ngañ mati ñang Ngañ Mati Ñang moo jur Alaaji Abdou Faty mu jur euh, Sëriñ Basiru Ñang ca Tayba ak Layti Kumba Seck ak ñeneen ñaar ñu sant Saar seen tur daf ma faay ñooñu la ñu yebal ñu pour ñu jël si Alaaji Maalik ci à l'âge de dix ans bi ñu dikkee ay maqadoom doom lañu indaale pour bu ñu bëggee jël xale bi bu gaayee bañee rek ñu tiir ci seen kaw waaye ba ñu dikkee ci maam fa wadd ni ko sunu doom la ñuy jël si mu ni leen dama am kilifa seeti leen sama càmmiñ alfa ñu dikk ci maam alpha maam alpha ni leen dëkk bi dafa am jukko te bu ngeen ne da ngeen naan dàkkit jël xale bi mën na indi histoire kon nag ni ngeen di def mooy toog fi ba miinanteeg waa dëkk bi ñu waxtaan penc yi pour jox leen seen doom juróom benn weer lañ fa am miinanteeg dëkk ba ñu daje waxtaan ñu fab Cheikh El Hadj Malick yëbbal ko Mar Aysata Sall mu togg ko ci fas yu aw ak moom yoonu Jolof ci à de dix ans. Mhm. ba ñuy départ nag maam Alpha wax Mar Aysata Sall mi togg xale bi. boo demee na ngeen ma góorlul ci àlluwaam ndax am na lu ma sama sëriñ sant ci moom lu ma defagul. Mhm. ba mu demee Jolof nag juróom-ñaari at la fa def. alxuraanam àgg. am événement bu am. ñi rayoon baay ba dugg ci biir événement bi pour gis ko pour rey ko moom Cheikh El Hadj ak maam Amadou magi baay ba maam Amadou yëg secret ba fexe dawale xale bi muy dellu si gars yi à l'âge de 17 ans moom mu daw dem Saalum ba mu dikkee nag à l'âge de 17 ans maam Alpha natt ko fekk alxuraan ji dikk waaye kalaama bi maanaam tajwid bi des na. Mhm. maam Alpha may ko keroog. dana koy wax mom Cheikh al hadji walid mag ñi dañ ko netali kérok la ko dalal lax dëri bi mu xamé ni wàcc na al qur'an kérok la ko may wérd kérok la ko mu xadamal kérok la ko def khalifa ni ko li la ma Cheikh omar santoon ci yow sa mbir ngok à l'âge de dix ans. ci fukkat yi. fukkat ak juróom-ñaar. 17 ans. waaw 17 ans ndax gaay bu mu fi joggé 10 ans la am. Jolof am na fa sept ans bi mu dikkee nag ca la yëppam complété ci dana ko daan na ko wax toujours naan sama xaala sayxu ak sama lijaasa ak sama wërd lépp ci benn góor ci benn jataay sama najaay Alpha ma yoro ci laa ko jëlee. mu daal ko cay jëlee nag yàlla defal ko la mu ko defal. ba laxdar yu àggee nag mu aw yoonu penku pour sàkku ji xam-xam mi ngi dem dëkk bu ñuy wax bokkal góor gu ñuy wax Moussa Ndiaye fa la jànge risaala jóge fa dem Podor. góor gu ñuy wax amat topp fa la jànge lawal ak saani topp nag biir Fuuta ak biir gànnaar di sàkku xam-xam. ci dem rek. dem ba yàlla atte am na juróom-ñaari nawet ci àll dellu siwul gaay ndax sàkku xam-xam ak alxuraan. am na sax ñu wax ne bi yaayam di nelaw fekk ko ca dëkk ba wala fekk na ko ciy tukki. bi yaayam di nelaw mi ngi njaar nde ah. waaye fekk ko Fuuta. déedéet booba fekk na sanc na njaar nde 1892. ah d' accord ci la yaayam génn àddina boobu fekk na mu am ñaari at njaarnde. léegi nag moom bi ko yàlla jafalee loolu ñan la El Hadj teg fi suuf jàngal leen. ñan la. El Hadj jàngal. gannaaw ba mu sàkkoo xam-xam ba tàmbali ber daaraam. am na juróom-ñett fukki nit yoo xam ne kenn ku ci nekk moo la jàngal may la wérd lijaasaan la. iskay iskay. mag ñooñu neexuñu lim juróom ñett fukk loolu dañoo bari waaw. Mhm. ndax moom ay nit daanañ ko fekk si di jëflante ay ñam jamono loon di waxtaan ak ñoom wala ñuy bindante bataaxal wala ay woy di dox seen diggante wala yi demee. am na mboolem kilifa diine goo fi dégg rek Maodo am naa ak yow relation. ba ci El Hadj Ablaye Niass. ba ci Bou Kounta Ndiassane ba ci sëriñ Touba ku ci nekk El Hadj Malick ku mu bokkal jamono te ñu lay woo tudd di tudd diine rek am na yow relation. muy muy muy jëflante bu rafet ci wàllu lislaam wàllu bindalante. danaa la nettali danaa la nettali benn xabaar. Alaaji Malick amoon na ay tool ca Gosaas. Alaaji Malick Sarr mii ma la wax ni moo nekkoon sëñ Cuppir moo doon euh, jëwri ni tool ba. waaye comme que Gosaas dafa nekk diggante njaareem ak kees alaaji Malick bu waajee pour dem ca tool yi rek fomm ko bu waajee pour dem ca tool yi fomm ko man mi wax ak yow sama wëllëre yaay ak sama baay bi ma ganee àddina foofa lañ ko defee ca Gosaas ca tool ya ñu laaj Maodo lu tax nanguwuloo dem ca tool yi ca Gosaas mu ni dafa am mbokk mu nekk ci yoon wi. bokk gi ni ma bu ko bu ko teggi diine ji ni ma bu ko teggi waaye tarixa bi ma nekk borom fiir ba ni bu fa dem moo tax ma jaaxle ma ma toog demu demu ma ca tool yi. ca Gosaas. waaw. ndeysaan. am gis nga relation ak Serigne Touba. am na benn góor bu ñu wax góor gi Amad Lamine Fall. Amad Lamine Fall silmaxa woon. waaye bu mokkal alquran ci juróom-ñaari fànn yëpp te sëriñ Touba moo ko jox Alaaji Malick ndax góor gi Amat Lamine Fall dafay jàng alxuraan ba toll ci li ilaa fi Quraysin te sëriñam di taalibi Serigne Touba. bi mu taree nag ci li ilaa fi Quraysin gàkk sëriñ ba mer xanaa jukkoom a jóg mu séndal ko ci taal bët yàq. bi bët yi wéree nag ci kaw silmaxana mu ŋàbb eh, ma Lamine Fall nag andi ko ci Serigne Touba ko man di sëriñ bi lii def ma dal ci ci ngóor si ma la ci doon laaj xel Serigne Touba ko bàyyi ko fi ba mu demee Serigne Touba bind leetar boole koog ndaw yónnee ko Cheikh Al Hadj Malick ci Tiwaawan ni ko ngóor soosu day laa bëgg nga defal ma alxuraan ci dënnam. ndax li la yàlla may ci silmaxa ak ñeeñu. yàlla defal ko ñu bare. alaaji Malick te Mad Lamine Fall ba jàngal ko juróom ñaari njàngin yépp mu ciy tare alquran. allahu ba mu àggalee ci moom mu bindal ko leetar delloo ko Serigne ca njaareem ni ko nattul ngóor si ba xam góor gi Mad Lamine Fall nee na muy weeru koor nee na jiital ma. topp ci sama gannaaw ci naafila gi nee na ngoon gu nekk ma jàng ñaari ijib ba weer wi jeex nee na alxuraan ji jeex nee na keroog bi ñu ne taafeer weer wi sëriñ Bamba ni nii la ko yàlla wàcce woon de waaye kii def lii ci sa dënn moo la moo ma àggale ci yàlla dal di koy delloo si tiwaaw ni ko may ko wér de te nga àggale ko ci yàlla alaaji Malik soog koy may wér de sancal ko dëkk bu ñu wax yesi yesi mu joxat ñu sant ñu sant fële ca gannaaw Kolobaan Mbar ba njabootam ñu nga foofa boobu relation Alaaji Malick amoon na ko ak Serigne Touba. jërëjëf jërëjëf mbokk yi maa ngi leen di fàttali rek na ay histoire la ñuy wax ci diggante jaar-jaari Alaaji Malick ñu nekk fii ci télévision bu 2STV fii ci Tivaouane ci dëkk bu sell bi nga xamee ne ab dëkkam la Alaaji Seydou mii ñuy waxtaane nag deretu Seydil Hadji Malick si la ndax wax na ko ci biir waxtaan wi kenn du ko présenté kenn ci biir réew mi yàlla dogal itam mu nekk borom xam-xam am xam-xamu taarix itam waaye daal Alaaji waxtu julli moom ak jàkka ja moom amu ci woon dend. gars daal nee nañ fonkoon na ko lool. pour wan la loolu. am na benn guddi. dañoo si fa ba àggal. di sikkar pour géej gi jot. ba géej gi jot ba ba moxtaan mi war a teg juróomi minute. te El Hadj dikkul. waaye ba mu ne tëll bunt bi def ne lu leen tey julli. ñu ne ko yow lan doon xaar mu ne ndax maa moom waxtu wi. dëgg de. maa ko moom. mbaadu bu ma fi jógee nii ngeen di def. waxtu wi yàllaa ko moom bu jotee na ndax man nit rek laa ne yéen damay am ngant. bu waxtu wi jotatee na ngeen ko julli. fekk booba dafa am borom bopp. mu hmm. fàpp ah, yu mu diw ci na mu tuddee ci ci ngaam bi. ndeysaan ngir kii waaye waxtu moom. ak jàngale. Hmm. jàngale xam-xam. Hmm. ak waxtu. ak recevoir nit. fi mu toog di jàngale. fi lay recevoir nit ji fi lay sikkare góor gi Aline Gueye nee na. da gis tuñ mi raf. mu ni taalibe bi na loo teg. loo teg kooku ku ko nangam nangam mu continuer ak moom ba mu yàgg mu ni ki ci loo teg. mu ni ko place sangam mu dem ak moom ba mu yàgg daal ni tukulóor ni nu mbadda daal ni naari ñu ne mu ne mbaa jàmm daal ngeen am nee na kurus gi nii tàcc nee na bis ma ni ko góor gi lëf ne metti na ci yow de. wallaay ndax bëgg a recevoir bëgg jàngale bëgg a wër mu ne ko ah bu ma labul woon day dana metti waaye nag lab naa ba yëgatuma ko. is kay moom Seydil Hadji Malick waaw radiyallahu taala tabarakallahu mbokk yi kon ñu fàttali rek kii ñu dalal nit ku baax la borom diine la borom xam la lii mu wax itam ci mbokkam moomu di Seydil Hadji Malick si la ko dal di eh, jëlee ma laaj la laaj bu xaw a doy waar loo bokk ak El Hadj di bi côté mbokk la bi ci des njuréel la. ayca côté mbokk gi moo di Alpha ma yoro mi jur sama baay. ak Fawad mi jur El Hadj Malick ñoo bokk ndey ak baay. foofu El Hadj Malick sama baay la fi. sama côté yaay faat si mi taawu El Hadj sama yaay mooy taawam foofu njuréel la. da nga ne da ngaa bokk ak moom fii bokk ak moom fii. waaw daf ma jur fii bokk ak moom fii. <laughs> wallaay wallaay wax nga dëgg. waaw tabaarakallaahu loolu moom lu rafet la ndax lii nga wax ci Seydi Hadji Malick Sy euh, ku nekkul ci ëttam xam li ko ci xam ñu néew lañ moo taxoon tey ñu ne fokk nu woo la nga fàttaliwaat nu lii ci wàllu gàmmu Tiwaawan léegi nag looy tëjee waxtaan wi ak dégg ko taalibe yeeg ci yaan yeeg werd weeg lépp rek. li ñuy tëjee waxtaan wi moo di. Mhm. nit na xam la ko yàlla may lan la. te it li gën a jafe yàlla defal defal la ko da ngay góorgóorlu ba mel melokaan woowu moo de lan moo de am kilifa gu mat kilifa ci wàllu diine te it nag dëgg bu kenn dul wax kàcc bu ñuy dëkkee wax ko man dëgg te it li Cheikh Seydi Aboubacar daan wax rek laa leen di euh, conseiller daf daan wax naan ku yor sa ku yor dërëmu dollar bu rafet. waaye yor kopparam bu xonq socc ko ba mu xonq cooy dikk ne la maa yor dollar ba bàyyi ko kopparam bu xonq te téye sa dollar. mag ñi fi ñu ni teg mooy alkitaabu wa sunna gis nga bala ñoo tëj bàyyi alaaji rawaan ngom mhm. mbax ndax saan bi dana ko laaj. ayca ci làmmiñam 1937. Mhm. fii ci zaawiya Cheikh El Hadj Malick. Mhm. ci la ma xamal ni. Alaaji Rawaan Alaaji ndax sama baay dafa ma indi ci moom fekk maa ngi jàng alxuraan mu ni ko ñaanalal ma sama doom ji. Mhm. bi sama baay génne mu ni ma doom doomi golo lu mu mën lu dul yéeg rek yàq na ko. wax ndax mooy baaxu maamam. na dëgg. mu ni doom nekk naa ndar. maak sa maam Alaaji Malick. nee na muy xiim ataaya ci loxoom bu tedd boobu moom Cheikh El Hadj Malick nee na ma uuf furna bi mu uuf baraada bi nee na xiim na sama kaas jox ma xiim kaasam teg ci kanamam nee na am na xaal bu ko daan dikkal bu fekkee ni jëkk na xaal bi dafay wàcce ayka bi bu fekkee xaal bi jëkk na ko rek loxo yi dootul mën a tàlli nee na bi muy laata naan kaasam xaal ba dikkal ko jëkk ko loxo ya mel ni dénk nee na moo moo koy xool bët yi ñuul ñuul mi dem. <laughs> ba weex weex bi rek des ci nee na ma parafitoon naan ci sama kaas ndax ragal ko. nee na bi xaal ba demee ma gis bët yi ñuul ñuul bi di dikk loxo yi bàyyi nee na ma gis mu fab kaasam mos ko ndekete dafa fàtte suukar lëwal bi. nee na mos ko tàqamte ko ne ma rawaan sama gémmiñ wala dama fàtte suukar lëwal bi. nee na ma ni ko ah, si xawma ma ci dara de mu ni ma nag ragal gii nga ma ragal yàlla rek a ko moom man nit rek laa na yow nee na keroog laa gëm ni nit la. ndeysaan na waaye naxul kenn. ku jox yàlla la mu moom jox yonent bi sallallahu alayhi wa li mu moom ki nga ki nga seqal àddina jàpp ak moom wëllëre la mu la sant nga def ko. sañ ngaa yaakaar yërmande yàlla yal nañu ko yàlla defal. amin wele amin amin jërëjëf kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant itam Pape El Wele mii nga xamee ne moom la ñu doon dalal waxtaan wi am solo lool mu jëmale woon ko ci Seydil Hadji Malick Sy ci bisu gàmmu Tiwaawoon gii nga xam ne ci la nekk fii ci ëttu Tiwaawoon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf jërëjëf lool jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf Cheikh Hadji بايعتكم سيد السادات بيعة من قد بايعوا المصطفى لله تحت شجر جايين تبوب مم الشيخ حاج حبيب سمالين نان وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان